beneen bi mooy dafa mel ni dañoo sentir benn crise bi waaj a am si biir coalition Diomaye ndax seetaan nañ maître Moussa Diop bokk si coalition Diomaye si télévision nationale Sénégal RTS mu ne gars yi fu mu toll nii ñoom ñëpp dañ na tekk waa coalition Diomaye nga xam ne ñoo àndankoon waa Pastef fu mu toll nii waxuñu leen wow na waxuñu leen koy na dañ na tekk di leen seetaan te instant yi ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekkoon si coalition Diomaye

dafa tolloog ay jamono te balay loolu sax damay wax benn vidéo bu viral bu Ousmane ko def di seede ci moom sedd yu ñëpp rafetlu di sedd ci pur sedd yu ñëpp rafetlu du seede ci Moxtachidine seede yu ñëpp rafetlu ci diggante bi am na lu am sëñ bi xam naa ko parce que man mochid la Cheikh Ahmed Tidiane Sy mooy sama sëriñ te bala muy nelaw boole na maag Cheikh Moustapha mais lii ñuy wax c'est dans le cadre purement politique te foog ñu ñeme ko wax. sëñ bi waxtaan waxul ak Ousmane loolu tax mu ne dañ koy négliger ce qui dit que waxtaan gëj na seen diggante donc sëñ bi xëy na dafa am lu koy rapporter ñun xam nañu Ousmane ci biir waxam dafa wax ni. Ousmane cherchait à me faire chanter te man kenn du ma chanter man mu leer ma ni avec tout le respect que j'ai pour le marabout Ousmane ko n'est pas quelqu'un qui fait chanter quelqu'un ou qui se fait chanter c'est comme le marabu il fait pas chanter et on le fait pas chanter mais ci diggante bi am na ñuy wax xëy na ci rapport boobu moo indi distance bi négligence mënu ci am ñaareel ba. mooy damay wax doomu aadama yi ñu màndu ci diggante boobu ñaar ñu am fit lenu ñaar ñu bëgg réew mi la ñaar ñu bëgg dëgg la seen réeróo du yàgg léegi incha allah ñu daje lenn kay rek moo ma ci jaaxal te lool sëñ bi laa koy wax pour mu dindi ko ci biir waxam moom moo wax ni yónnee na ay émissaire ñu wax ma ko ma ne maa lànk waa émissaire bi ndax da doon jéggalu si ndax da wut ci audience walla da wut si leneen bu jotul ci émissaire yi du mun a xam lu ñu koy wut na ubbeeku te déglu émissaire yi yàlla dogal mu dajeeg rakkam wala doomam ñu toog waxtaan juboo loolu daal laa mën a wax ci loolu bien la coalition a un nom la coalition s'appelle coalition Diomaye Président man Mayaba ci sama xam ci li ma xam déggaguma fenn fu ne coalition bi day continuer di glisser di dem ba vers les législatives et vers les locales ànd nañu dans la coalition Sonko euh, Diomaye président Diomaye falu na ñii jox na leen responsabilité ñii c'est des ministres ñii c'est des DG ñii c'est des PCA et consorts ñi si des toog di xaar war nañu mën a ànd coalition mais on n'est pas obligé war nañu mën a ànd loolu du dara mais on n'est pas obligé parce que rien ne nous dit que cette coalition devrait glisser jusqu'aux législatives kilifa yi nag ñoo nekk ci kaw ñooy décider sama xam-xamu bopp laa waxee mais daal laa coalition s'appelait coalition Diomaye président Diomaye président falu na fal na ñii fal na ñii fal na ñii ñu ngi dem législative su nu mënee ànd ñu ànd su nu mënee ànd waaye nag am naa sama xalaatu bopp dem nañu coalition ba tàyyi ci lu mel nii lañ cee jëlee suñu mbubb lakk wala suñu tubay ju xotteeku bi yoon de su fekkoon sama sama xalaatu bopp rek la en tant que magi Pastef damay wax Pastef dama lal sa bopp na ku ne wane boo leen loolu mooy sama point de vue li tax ma wax ko mooy politique dafa bare ay péripéties su ñu àndee en coalition ñu àndoo dem même boo amee cent quarante députés ëllëg coow am ñii di rocceeku ñii di rocceeku ñii di rocceeku ba indil dafa ay problème alors que ñun Pastef kese war nañu mën a am cinquante six pour cent des députés ëllëg ku ànd ak ñun baax na ku ànd ak ñun ñu des ak suñu majorité loolu laa mën a répondre comme question. amul beneen. waaw attendez sëñ après il faudrait qu'on comprenne une chose quand on fait un point de presse dans les plateaux on dit que waa Pastef ñemewuñu ay point de presse rek la ñuy def ñun mag cette fois-ci on a décidé de faire une conférence de presse vous êtes là nous sommes là posez-nous les questions que vous voulez nous poser si vous n'avez pas de questions c'est parce que vous n'allez pas nous inviter dans les plateaux pour ñu waxtaan ce que vous devez nous euh, poser dans les plateaux posez-les nous ici waaw mais comme comme il n'y a pas de question je crois que mën nañu.